حسن الإله tànn boo xam ne te bi ñu ko tànnaloon mooy mu bi xablillahi jamia wala tafarraqu kon moo digle bennoo waaye moo tereet teqalikoo gi am ci beneen barab boo xam mi ngi wax ni bu leen xëccoo ndax bu ngeen xëccoo da def li ñuy wax njonjax te mooy échec bu ko defee force bi ngeen amee woon muy kàttan gi day daal dem teg ci ni na muñ ndax yàlla ku ànd la ak way muñ ñi wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba wasbiru inna allaha ma'a saabiriin kon euh, thème bi am ku mu am solo euh, tax na ku seetlu ñaani sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu muy ay mbindam euh, dañ ci gis lu bare bare bari muy ñaan ñaan yoo xam ni lu aju ci loolu la am na ci barab boo xam mi ngi ñaan boroomam ni ko yàlla nga def suñuy xol ñu soppante bañ ci xëccoo bañ a ñaanante xuloo bañ dëddoonte bañ bañante ba tey bañ a foñante waaw ah, wajaal qulubana ala tawadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taqaasumin wala tadaaburi wala tabaxudin wala tanafuri xatta nasiira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin kon euh, jàpp nañ ngir ab société man a jëm ci kanam réew mën a jëm ci kanam euh, faaw jullit ñi war di bàyyi xel loolu bu baax maam ci wàllu bennoo gi ak lépp loo xam ne lu mën a yàq loola la ñëpp maasa ci di ko moytandiku euh, loolu jàpp naa ne bu ñu defee dana am solo ci jullit ñi solo soo xam ni àdduna ak alaaxira yëpp lay doon kon dañuy bañ a guddal jox suñ suñ Seexuna mi nga xam moo war a def waxtaan alihi wa ashaabihi allasina shahadu diin wa ala man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokk yi teewlu ñu ngi leen nuyu nuyoo bi gën a rafet gën a sell di nuyoo ba alislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru koor wi tedd wi ñu nekk rawatina bis bu màgg bii nga xam ne dañ koo jagleel fàttaliku kenn ci jàmbaari lislaam yi di Cheikh Souhaïbou ibnu Cheikh al Xadim di ñaan yàlla li nga xam ne ñu ngi ko ciy séentu yépp ci màggal bis bi suñu borom defal nu ko te defal nu te defal nu ci lu kawe njort waaye mboolem ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko jëme ci moom yépp itam yàlla nangul ko te ful ko te àggale ko ci waaye di beral siyaar itam ki nga xam ne moo ko fi teewal gannaaw ba nuyoo ki nga xam ne mooy kilifa ak yoon wi di sëriñ Sidil Moxtaar di ñaan yàlla mu gën ko fee yàggal mooy ko ak wér naka noonu itam la ñuy siyaaree ki nga xam ni moo fi toog a jotaay session ak mi ñuy fàttaliku tey mooy sëriñ Cheikh Seye ak mboolem ay rakkam waaye itam ñi nga xam ne ñoo taxawee waxtaan yeeg yu ni demee ci njiitul Serigne Soxay bu Njaay nga xam ne ñoo amee ñoo taxawee programme bis bu ñoom itam ñoom ñëpp ñu leen nuyu te di leen ndokkeel di leen siyaare ji bis bi bu ko defee itam fàttali ko nit ku baax niñ ko xamee saa bu amee suñu borom dafay wàcce dem waaye ñu sàmm wante bu baax ak li nga xam ne moo tax ñu koy fàttaliku muy jàng ay ñaan yoo xam dañ koy jëme ci moom waaye mën a am ay jikko yoo xam dañ koy jële ci moom muy jikko yoo xam ne buñ ko jëlee ci moom jàngat ko bu baax a baax ba xam nga bu ñu ko mbubboo rek bi ñuy jëriñ àddina ak àllaaxira ba mu sëriñ Saaliu Njaay ñu ngi ko junjee muy thème bi nga xam ne moom lañ ñu jox ngir ñu waxtaane ko mooy lu jëm ci wàllu bennoo ittihaadul muslimin wal firaaru anit tabaaxudi wa taqaatui wa tadaabur mooy bennoog jullit ñi te ko ne xam na ne Serigne Souhaïbou itam ci anam googu la doon dox mooy ni mu doon jàngale alxuraan bari sët yoo xam ne moo leen jàngal ba ñi nga xam ne ñoo doon jàng ci daara ji ko ne xam ne tey ñun ñëpp ay xarit lañ dañuy miinante di fekkalante di demalante dikkalante te loolu lépp boo xoolee kon dafa suyee lu baree bari ci wàllu bennoo googu kon bennoo balaa mën a am day fekk yi nga xam ne mooy tax bennoo da mën a am yëpp dafay dàq yëpp dañ koy dégager mooy lu mel ni que meronte ba ne xam ne ne ak meroo fu mu am bennoo dafa mën a am te bennoo ba amul itam dimbalante du mën a am te jullit ñi dañoo soxla ñuy dimbalante seen biir ndax mooy tax société bi avancé kon loo xam dafay waral ak dogoo wala ak meroo walla lu mel ni que ak ji yooyu nga xam ne dafay dàq ak bennoo yëpp boo delloo ci al usul shar'iyya da ngay fekk yëpp mu koy teree boo demee ci allusofu salarié mooy njàngale salarié da ngay fekk mboolem yi nga xam ne lay dox diggante jullit yi mën a bennoo yëpp da koy tere da koy éviter waaye yëpp itam day sant nit ñi ngir ñu fexe ba dégagé ko ci seen bopp. man bu ko defee incha allah ci gàttal ci ñeenti tomb lañ koy tënk alxuraan ak sunna soññee gi ñu soññee ci wàllu bennoo ni ñuy def ba bennoo boobu mën a am ci yi nga xam ne buñ ci jàppee dana tax mu mën a ak yi nga xam ne dafay jur ak vidéo ba bennoo ba mën a am danañ ci waxtaane bu ko defee nag wax lan moo ciy pexe maanaam ngir fexe ba bennoo ko mën a am boo demee ci alxuraan karim siiw na lool yàlla di wax ay aayaat yoo xam ne yëpp dañuy delloo ci wàllu ñu nekk benn te ba sëñ bi jijee léegi wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu yàlla ne yéen ñëpp na ngeen maase ngeen mooy ci buumug yàlla bu dëgër gi nga xam ni mooy diine waaye itam mooy alquran ndax diine dafay diine joo xam ne dafa ñëw ngir benn la doomu aadama yi ngir def leen ñi benn waaye lépp loo xam day tax ak xàjjale ko mën a jublu seen diggante loolu islam dafa ñëw ngir dàq ko moo de kon na ngeen ànd mooy ci buumug yàlla te bu leen teqali ko ndax diine loolu mooy cosaan bi diine li ko taxoon a ñëw muy boole diggante doomu aadama yi ba aaya boobu boo xoolee dafa taxawaay ci doon dajee feeñ bu baax yàlla di wax ne waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daa'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-naari fa anqadakum minha nee na rek waay na ngeen fàttaliku ba ngeen nekkee ay noon lislaam ñëw boole leen def leen ngeen di benn te moo di seen teqali ko googu ne bu ngeen ci nekkoon ba faatu lislaam benn li leen ba boobaa sawara ngeen mujj loolu tax mu ne daanaka yéen a ngi woon ci bindub sawara suñu borom xettali leen ci jabam leen boole ay boobu li ko ci dafa am giir bu siiw gi nekkoon ci madina ñaari giir ñu leen tuddee awsu ak xasraj mu nekk góor boo xam ne naka jekk dañ daa meroo di foñante di noonoo di xeex ay xeex yu dul jeex ci seen biir ba yàlla dogal diine lislaam bi mu ñëwee yonente bi alayhi Madina ci la boole ñaari mbir yooyu nga xam ne mbooleem xeex ba nekkoon seen biir dafa ne lislaam boole leen ci genn keppaar ñu koy dund ñuy dund ci jàmm ñuy dund itam ci am noflaay loolu la di wax ci alquran naa ko wa allafa bayna qulubikum law anfaqna maa fi l ardi jamian maa allafta bayna qulubihim walakin ñu ko ñooñu suñu borom moo leen boole boole seen xol tàppe ko def moom yi benn wax ne ñaari giir yooyu nga xam ne islam da leen a boole nag ñu dem ba gis loo xam ne jàppoon nañ ni àdduna du mas a dox àdduna du mas a dox ba bay bokk genn keppaat boo xam ne dañuy toog di waxtaan ñoom ñëpp ànd ci nekk ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi dund l'islam wax na ni giiru Aws ak Xasraj dañ dundee noonu ba yàgg benn bis ñu toog ci keppaar bi waxtaan am benn yëngu biir ndongo loolu naqari ko bu ñu nekk woon ay noon démb daa xeex tey jii ñu nekk benn muy ku ñuy wax Saas ibnu Xays benn yëngu la bi mu gisee mu metti ko nag mu seet beneen yëngu boo xam bu kàccoore la di ko demal ci seen biir ngeen fàttali leen bàkk yéen daay def pour ma ci xare. ndax bu ma sànnee sax kenn ku nekk day tëb ko moroomam bàpp ci kanamam di ko wan doole jéegoon boobu nag ñëw dugg seen biir bi mu commencé di wax bàpp yi daa def ndax yow ma boo xam ne ñu ko fàtte ba mukk aws ak xasra ñoo ci ñoo ci doon xeex ba yàlla dogal aw si jël la moom nag mu ñëw di leen fàtte bi loolu ngir jekk waat da xam ne moo amoon démb bi nga wax ba yitu bàkk yooyu seen xol yi di fuddu seen xol yi di tàng ba ñoom ñi kenn ku nekk dal di bocc ngànnaayam bocc jaaseem fas yéene engagé moroom ngir dal ci kawam waaye bi loolu amee dal di roccee bu gaaw wax ko yonent bi ne ko ñaari ji ñi nga xam ne mooy aw sa xasraj day dugg ci islaam wëlbati ko nañ di xeex yonent bi alayhi salaam dal di ñëw taxaw ci seen biir ne leen abi daawa jaahiliyya wa ana bayna asburikum ndax da ngeen di delluwaat ci yëfi ceddo ginnaaw bi nga xamee ne lislaam boole na leen def leen ngeen di benn waaye bi xamee ne wax na leen ba noppi soññi leen jàjjiwaat leen ñoom ñëpp ci la seen yaram daw ñu daal di jooy kenn nekk daal di écolaat ñu daal delluwaat nañ meloon suñ borom nag di fàttali loolu di leen fa asbaxtu bi ni'matihi ixwaana nekk ngeen nekk bu ngeen nekk ci diine lislaam loolu moo leen mujj boole def leen ngeen lislaam li nga xam ne moo ko tax a jóg mooy boole nit ñi def leen ni di benn kon xam na ne ak mbokk bari ndax ah, am na fi lu ñuy tuddee uquwa nasabiya wala ñu koy tuddee uquwa damawiya mooy ki nga xam ni dareet moo la boole moom waaye lislaam mbokk gi nga xam da ko reconnaître def ko muy genn moom mooy mbokku lislaam loola tax boo waxoon ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ni képp koo xam ne gëm na yàlla jàppal ne sa ay mbokk nag bu ñu nekkee leen war mooy kenn ku nekk di yéeme na luy tax mbokk gën a rafet luy tax ànd ba gën a bu ko defee loolu lislaam ñëw ngir jàngale ko kon da ngay fekk ci alxuraan barab yi yoo xam ne ni soññi jullit ñi ngir ñu delluwaat ci bennoo boobu yaa ngi atiu wa atiu allaha wa rasulahu wa la tanazaru fa tashalu wa tadhhaba rihukum yàlla nee na ngeen topp yàlla topp yeneen te bu leen di xëccoo waaye lu mel ni nga ak concurrence ak wóote li muy indi mooy échec échec nag mooy la nga xam ne moom ngay juble ngir am kooku boobaa doo ca mën a àgg te teqali ko loolu lay waral tey itam bu boobaa li ngeen jotoon a am ci kàttan kon ni olof di waxee naa mbooloo mooy doole lu kenn na man ñaar ko dàq lu ñaar man ñett ko dàq waaye naka noonu bu mboolee maneetare itam kon ñàkk caa booloo li muy indi mooy néew doole loolu tax ñuy sàkku nit ki lépp lu muy def rek mu ànd ko ña nga xam ne ñoom la ko mën a àndal bu ko defee mooy tax mu jëm kanam waaye nag saa buñ tàqali ko séddali ko échec day indi doole day indi loolu tax alxuraan dañu ko wattandiko loo bu baax waaye mu mel ne tàqali ko ba amee itam mbugal day indi ndax yàlla bi nga xamee ni yahuud yi ak nasaraan day jox diine ñu daan koy séddale partagé ko kenn ku nekk nam jàpp la leen yàlla digal wàcc ko ko léegi ñu topp ko waaye ñu topp seen ko suñu borom wax ni looloo tax dig naa leen bëggal mu metti wala takunu kallazina tafarraqu waxtalafu min ba'di ma jaa'atuhumul bayyinaat wa ulaa'ika lahum azaabun wax ne kon bu leen topp ñi wala ay nasaal lañ nga xam ne ñoom dañoo teqali ko ci seen biir bu ko defee jullit dafa war am lu waaye alxuraan lépp loo xam ne tey ñëw di ci soññee di ko jàngale ku ne xam na ne alxuraan dañ koo tuddee mujmal mooy loo xam dafa bari lu ko làmboo loolu mën na tëj bopp nit ñi mënuñ koo xam ca anam nga gën a leer sunna nag ñëw ñu tuddee ko mu bayyin wala mu bayyinu ko mu fassiru ngir xuraan yeneen bi ay waxam yëpp dafa ñëw ngir tekki alxuraan ngir détaillé ko ngir gën koo leeral looloo tax sunna boo koy jàng lépp da lay delloowaat ci njàngaleem alxuraan ak di ko gën a yaatalal te yonent boo delloo ci ay waxam muy al ahadiisu nabawiya fekk mu ci soññee bu baax a baax moom itam ñi ci jëmee ci benn hadis boo xam ne Abu Hurayra nettali na ko ci riwaay bi ko indee laaj nettali ndax bi dafa bari riwaay yu ñëwee dafa bari anam yu ñëwee waaye bu fekkee ci ni ko Abu Hurayra nettalee. te saxiixu muslim génn na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam da cee wax ni laa taxaasadu wala tanaajasu wala tabaagadu wala tadaabaru am na ñu ciy teg wala taqaatamu moo ne bu leen di añaanante ndax ku ne xam ne añaanante bu amee ak benn wàllu mën a am bu leen di rëbbante itam mooy bu leen di naxante ci seen biir bu leen di meroo bu leen di walante ginnaaw lii yëpp boo amee dafay delloo société ginnaaw société yi tax mu avancé jëm kanam mooy nit miinante di di jàppalante kenn ku nekk jàppale sa morom ci anam nga ko mën a jàppale waaye saa bu meloo amee wala wanante ginnaaw wala ak dogante boo boobaa tax miinante dimbalante du mën a am fi day dellu ginnaaw waaye bi mu indee xaalis bi dafay tudd yenn nag yoo xam ne mën naa indi ak dafay indi yenn yoo xam ne mën naa wala ak teqali wala ak meroo mu jiital ci wala yabiix ba'dukum ala bayni ba'd mu jaay ci kaw njaayu moroomam boo ci marché bi da nga ko gis lu bari da ngay soxla marchandise ko jënd ci kii te na daal taxaw ba koo ata ñàkkal ne kaay man ma jaay lu ko gën a xam na nag loolu ñaari commerçant bu ko def seen diggante ak jubóo du a am boobaa da muy indi seen biir moo di ak noonu ak ah dafa wax ne bu eñaanante bu leen meroo wanante ginnaaw koo xam da laa tere nag da lay mel ni dañ ne waaw kon loolu ñuy digal mu ne yéen ñëpp da nekk ay jaamu yàlla yoo xam ne ngeen a mbokkoo ci diine ci dafay mën a ak teqalikoo bokk na al muslim laa yazlimuhu wala yaxduluhu wala yaqdimuhu wala yaxtiruhu wala na xam ne jullit jullit ay bokkam loola tax bu mu tooñ bu mu seetaan bu mu seetaan mooy bul fekk ñu koy doyadal wala ñu koy néewal doole nga mën koo jàppale ba noppi ko seetaan jullit jullit ay bokkam bu mu ko wetti bu mu ko fenloo bu mu ko xeeb ndax xeeb bi itam saa boo ko defee ni koo xeeb mu xeeb la ndax xeebante ko amee itam li muy jëmoole ak ngaa yow rek ak muy joo ak ñàkk jubóo wa anha barbi jàll dafa wa man xaqara rijaala fa lajuha ba bu ko defee yonente bi aleyhi salaatu salaam ci biir bi muy jàngalee ba tey wax ni kullun wala bi xasadi mri'in min ashar bi xasadi mri'in min ashar an yaxkira axaahu muslim nee na dara yeesul wala kenn yeesul nit ki nga xam ni dafay xeeb bokkum jullitam ni moom koo xam ne yéen a bokk na ngeen yéen a bokk fenn fu ngeen bàyyi ko mooy aadama dëgg-dëgg boo koy xamee nan nga tax ma ni doy na nit ki ak yee sëkk muy xeeb mbokkum jullitam ndax jullit moom mbokkum jullitam kon dafa war a am lu war a àndee mooy kenn ku nekk nay sàmm war may moroomam mooy tax ànd nga nekk al muslimu man kullul muslimi alal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irduhu yonente bi sallallahu alayhi wa wax ji jullit bi léppam dafa araam ci bokkum jullitam mooy sañoo laal ab deram di ca teg lu ñaaw sañoo nangu alalam itam wala ngay luubal alalam ci anam goo xam ni ci anam goo xam ni mën naa maanaam sa yama dëgënal ko kon deram amoo sañ sañu ko wala nga ci wax lu ñaaw sañoo tuur daretam naka doon itam sañoo laal alalam wala boobu nga koy luubal nga gis ne kon xaalis bi ni muy jàngale mooy lépp loo xam ne naa ñagasal ab diggante sariya da koo tere lépp loo xam ne naa ñagasal ab diggante islam dafa jóg ngir éviter ko bu ko defee loolu lépp boo ay tere la li ñu tuddee almanaahi shar'iyya yëpp sariya da koo tere ci mu ñëwee te sallallahu alayhi wa sallam mu tudd fi lenn ci sabab yi xam ne bu amee mën naa indi ak noonu tax mu tere ñu boo xoolee kon islam dafa sàmm mbooleem àq yi nga xam ne mooy àq yi dox diggante jullit ak moroomu jullitam ni ma la ko waxee mbokk yi bari na waaye nag islam bi ci gën a reconnaître jàpp ko mu di ak mbokk moo di mbokk lislaam ndax gis nañ ba diine di doog a door ko rey bàyyam gis nañ ko rey rakkam te dara fekk ko ci waxuma dara fekk ko ci waaye sax alxuraan dafa wëlbati ko ñu di ko dagg laa tajidu xawman yu'minuuna billahi wal yawmil axir yuadduuna man xadda allaha wa rasulahu kaana abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum ñoo xam ne ko ñuy wax Ubaydatul Jarraax ci xaswatu Badar dafa dajeeg bàyyim dóor ko jaay ñëw di di wax ni ñi nga xam ni day ko noonoo yàlla ak yonenteem ñoom dañ koo def am noonu donte seeni bàyyi la wala seeni doom la wala seeni mbokk la ma wax ni ñooñu daal dëgg dëgg ñëw gëm yàlla

dafay sos ak noonu wala muy sos ak meroo ndax mooy lu mel ni ki xam ne ni koy koo añaane doo ko bëgg mu ful baax doo ko bëgg jàmm te nit kam añaane itam ak juboo du ko dox seen diggante mukk te añaan mooy lan kii kat am na lu ko yàlla defal te neexuma léegi nag na ko ñàkk ak anam bu ko mën a ñàkkee nag baax na donte man am nga ko moom la tax moom rek loolu amul nit ki benn njëriñ wax dëgg yàlla bu ko defee añaan boobu bokk na ci dox diggante nit ki ak mbokkam ba tax ak di ko du mën a am waaye li yent bi alayhi salaam di jàngale ba tey itam dañuy fekk li ñuy tuddee al xayaatul istimaaiya li ñuy tuddee islam xayaatul istimaaiya da ca am mooy dafay jàngale loo xam ne buñ ca sikkandikoo day tax dundal société bi dégg ko dafay mën a teg dafay mën a tegu ci aw yoon nga xam ne fii dafa wax ak commerçant yi bépp commerçant day bëgg marchandise am jar boo ko defee luy tàmbali seen i sax jàng na dara koy def donte day xañ keneen sax moom yow indi ko ci waaye dictateur la dictateur moom man daal sama yow indi moom keneen xam nga waaye man daal en tout sama intérêt sama intérêt bopp laa xam sama basi si la jàpp boo ko defee yëpp benn nag ki ngay lor keneen kenn bi nga bëgg a jaay am naa sa di taxaw digganteem ak keneen bi ci moom la war a ñëw a def daal jur ak moom laataa loo ci gis da gis borom place xam ne dañuy sosoo waaye nag jaaroo ab taal bi ñu daal te am na ñu doon war a mën a jàppale am na ñu doon mën a jàppalante seen diggante dana tax seenu jaay dox dana tax seen diggante wala seenu liggéey gën a a am avancement waaye nag xëy tax ñuy boobu bu ko defee nag li nga xam ni boo amee dafay mën a jël ak bii ñëw dafay mën a jël ak ngaa yow moo tax nag sa yaram ñëw ko ndax dañoo wax loolu saa bu amee rek yi wankidul xeqada wal karaahiya fi nufus wa yuaddi ila shiqaaqi wa tanaafur bu ko ak noonu day ak bañal yi tam di ci bakkan nit ki bu ko defee nag la muy àggale ci seen borom mooy ngaayoo ak di dawante ak di wanante ginnaaw bu ko defee ñu gis ne diine ji nga xam di diine ji sell objectif am benn képp la mooy li ñuy tuddee isaal basariya dafa ñëw ngir jàngal nit ñi anam boo xam ne wala rëdd leen yoo xam ne buñ ca jaaree seen dund dafay mën a jekk buñ ca jaaree seen dund dafay mën a tegu ci yoon loolu mooy xam ne moom la rëdd yi bëgg ñu dee jaar bu ko defee yàlla moom tëddee la moom ne yàlla tëddee nag bu ñëwee tekk ko bëgg a indi suñu tëddee yi bopp bu boobaa dafay yàq loolu tax ñu fekk Seyxul Xadiim radiyallaahu taala anhu di ñu jàngal ci njàngaleem boo xam ne da cay dénk ñi nga xam ne ñoo ko topp ba leen lu mën a xew na ngeen bëgg seen bopp jàmm ñëpp na ngeen bëgg a wuyu kunu kunu muhibbiina al-xuyuura li jamii' xalqi ilaahina al-muqaddimi al-badii' fa innahu subhaanahu laa yardaa li xalqihi sharra aliim al-xalqa nee na rek waaye da ngeen bëgg ñëpp jàmm da ngeen bëgg ñëpp lu baax ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala ndax yàlla bi bind mi dee fi lu baax leen bëgg ndax yàlla bëgg kum bëgg bi day fi moo tax mu dara si leen ay yoon yoo xam ne bu tëjee risque bi lu dara jekk ginnaaw yàlla bëggal nit ñi aw ay nag mu ne kon yow na nga bëggal nit ñi bu baax waaye bul fasal ci sa kenn bul fasal ci sa xol kenn lu bon wala lu ñaaw kon bu ko defee dafa mel dañuy ñaax bu baax a baax ñu gën a bëggante ndax bëggante ba amee rek ak jàppalante dafay dal di mën a am loolu tax wax ji siiw yoo xam ne dañ ko faral di askanale sëriñ bi waaye sëriñ bi waxu ko woon Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye moo ko waxoon di wax ni nga waree ànd ak mbokkum dajaa waxal ne mbokkum taalibe nag ni moom mooy soppante dimbalante bëggante soppante bëggante jàppalante ndax soppante li fii amut wóolante du mën a am wóolante kon nag da ngeen di bëggante wóolante bu ko defee ci kaw loolu kon dëgg na ci jullit bi muy merom mbokkum jullitam wala bu na ngay meloon moom itam dafa am lu la tegal ñu moo tax nga war koo muy lan mooy lu mel ni dafa def loo xam ne lislaam da koo tere nga bëgg koo jàpp ci delloo ko ngir mu desiwaat loolu sañ ko ko caa mere ngir bëgg mu dellu ginnaaw ci la mu nekk bu fekkee dafa nekk ci jëfi kàccoor wala ñu mel noonu te itam meloo ko ba dañ la na nga fexe ba mu ëpp ñetti fan jullit wër te meloo mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan te loolu képp ku ko def ndax da doon wax ni laa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas yaltaqiyaani fa yu'ridu haazaa bi wa haazaa bi wajhihi wa xayruhumaa allazii yabda'u bi salaam nee na daganul benn jullit muy meroog mbokkum jullitam lu ëpp ñetti bu ko defee dañuy daje ne kenn ku nekk daal di dumóoy kenn ku nekk daal di xool fële nee na loolu nag saa boo a nuyoo ci ñoom ñaar moom la suñu borom defal ki gën ci ñoom ñaar mooy ñi nga mooy njëkk a nuyu loolu tax islam yoonal nuyoo waaye rawatina delloo ak nuyoo loolu muy defar nit dana ñëw yàq sa diggante koo xam ne seen diggante ne am na wax wax wax yàq am deram wala yam dem ci wax wax moom itam yàq am sa der ko defee yéen ñaar bu ngeen dajee kenn ku nekk mën naa jàpp ne ko wax ci moom ba tax nga nuyu wala moom ba tax ngeen daal di rombante la ko ne dóor moroom benn waaye nag ba yàlla dogalee kenn daal di nuyoo rek ka ca des mën na ko fay lan te jàpp ne suuf doxal la waaye dara déglu ci looloo tax lislaam di bi alayhi salaam daa mosal wax ne xanaa du may wax loo xam ne bu ñu ko defee de da ngeen bëggante ñu ne waa xaka yi soxla nañ ko ba amee jël moo di leen afshu salaata baynakum da ngeen di siiwal am nuyoo ci seen biir mooy kan dañoo war waaye mbir yooyu itam ñaanal jàmm la waaye jàmm ja ba nga koy ñaan itam day nga fas ko ci xol te fas yéene ko jëfee daanaka saa boo yaa ngi koy ñaanal jàmm bi yàlla na dal ci kawam na nga koy nag dëgg dëgg na nga ko fasal te itam dafay neex dafay ratax bu defee da nga mën a jàppale te ci loo xam ne mooy tax seen i mbir mën a jëm kanam loolu tax yonent wax ne kon dëggal ci benn jullit muy meroom loola tax mu wax ne ci ñaari jullit yoo xam ne dañoo meloo ba faatu te jubóobuñ ñoom ñaar duñu te jubóo ko aljanna wa ayyuma muslimayni maata wa huma mutahaajiwaan laa yajtamiaani fi janna kon koo xam ne ak meloo dafa dox sa diggante moom wala ak juyoo lépp luy tax mu rafet lépp luy tax diggante ñegas ñegas boobu ngeen ngeen aji ko ngeen jeexal ko war nga dox bu baax

nee na bi ma jógee léegi dem nii rek dama koo nuyu ba noppi masla ak moom mu jéggal ma ma jéggal ko yooyu tamit ne ko waa góor li nga def noonu la daal di ko ahsanta ijlis ko dafa fekk ni mbooloo fu mu toog yërmande yàlla wàcc te yërmande yàlla boo ko fekkee kuy toog ak mbokk day tax yërmande di wàcc maanaam day takk te li ñu ak mbokk mooy ki nga xam ni lislaam dana boole moom muy sa bokkum jullit kon nag looloo tax bu fekkee ak meroo dafa dox kon bokk na ci lay tàmbaloo ko deñ mooy ak moom fa dox ndax bu fekkee da ngaa naa man daal dama ko fekk moom dañoo fekk si ma kon moo boobaa yaa ngi doxal ak rëy te ak rëy nag moom lépp lu mu fondement boobaa da koy yàq ak rëy lépp lu mu fondement dafay bu ko defee bokk na ci liy jeexal diggante boo xam dafa naqari nag mooy nga fexe am ak woyof bu toll bi boo xamee boo ne topp topp ba dafa a jeex nga kii ko jugal ko defee xaalis boobu la ñuy jàngal boo ko defee bokk na ci mboolem yi nga xam ne dafay jur ak teqalikoo dafay jur ak meloo dafay jur ak dogante boo ko defee loolu nag lépp loo xam ni lislaam dala ko sant boobaa doo ko mën ci anam dala ko lislaam sante fii nga xam loolu jeexaloo ko ndax yàlla ñaare fu muy diggee ak bennoo da ngay fekk ak ragal yàlla li ñuy sësale kon dafa mel ne lii tax nit ki mën a am ak ragal yàlla day fekk li xam ne yàlla ko sant ma def ko te mooy mu rafetal a ba muy ji ma jàppalante nga xam ne lislaam leen koo koy sant. loolu tax boo xoolee dafay mel ni di li tax yàlla bind doomu aadama yi ba noppi teqalee bi wóotee ci ay waaso wóotee ay dëkk wóotee ay der yëpp nag nee na li tax def ko mooy bëgg ngeen xamante. yaa ayyuha nnaasu innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu naan boobu naan taalim la ràññ la bi tax yàlla wax ne dama leen bind ngeen góor ak jigéen waaye ma def ne ngeen wuute itam wuute ci ay xeet wuute ay dëkkuwaay wuute ay dernier yi ñëpp dama ko di ngeen waaye nag mbokk yi gépp kenn la ñu ñëpp ci aadama lañ bokk bàyyi ko bu ko defee ginnaaw yàlla daa tëri noonu nag boo tëri nit ñi ngir bëgg ñu xamante kon képp koo xam ni yaa ngi def lii di ak teqale ko wala ak noonu kon yaa ngi manqué l'islam muy organiser wala récit bi nga xam ne moom la teg te yàlla moo gën a xam ni addina bi war a doxee ni muy defee war a doxee saa yoo xamee ne safaane nañ ko nag bu boobaa ay jafe-jafe day indi ne que li yàlla li tax yàlla bind mi def yëpp boole muy li ñu tuddee asbabu raïs yi mooy cause fondamentale bi li mooy ngir ñu xamante te borom xam-xam yi dañuy wax foofu taaruf dafay yéen ak jàppalante balaa mën a am ak xamante dafay am ci la ñuy mën a di nemmeekonte gën a miinante bu ko am te jàppalante lépp lu boo boobaa da koy jagal kon bu wutee ak jàppale boo amee dafay indi saa bu ñu ay jafe-jafe yu méttee métti lay indi xoolee réew islam yi nga xam ne dañ dund boo xoolee jullit ñi ñoo ëpp ci àddina bi ñoo ëpp ay mooy nitam ndax li nga xam nit ñi mënuñoo dox sans moom mooy lu mel ni que pétrole wala bi ndax boo xoolee ci réew yi jullit yi da ëppee waaye nag boo xoolee occidentaux yi ak seen pexe fexe nañ ba écarté jullit ñëpp di leen teg kenn xoolee li ñu def bu yàgg Libya dugg Afghanistan toj ko ba mbokk dagaloon nañ leen Palestine ñu ngi jëmale ay tahkiidaat ci Iran te boo xoolee yooyu yëpp nag ñoo leen ëpp doole maanaam ñoo ëpp ñoo ëpp ab lim boo xoolee itam ñoo ëpp ay moyen waaye li tax nag mënuñoo fexe ba daaneel seen noonu lépp boo ko xoolee ci ak ñàkk benn lay dem ci ak teqalikoo lay dem boo xoolee kon Occidentaux bi dafay mel ni kii fexe na ba écarté jullit yi kenn kenn leen waaye ñoom ñëpp dominé na leen loolu nag boo xoolee lépp dafay delluwaat ci ñàkk benn yi nga xam ne moo am loolu tax am benn boo xam dafay wax ne wa min al umuuri musallami alayha wallati asbataha al waaqi abda taarix islaami an al ittihaada quwwatun nee na mbir yi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci ñëpp d'accord nañ ci te mooy li nga xam ne itam boo xoolee tiyaari ci boppam moo ko saxal tip bi taarixul islaam na xam nañ ne na dalee ba tey lislaam bañ booy jàng histoire ba commencé ba tey bépp nation bu la sa wax dinaa ak benn amoon na seen diggante ñu nga réussir ci seen doxalin waaye boo xoolee itam ki nga xam ne dafa daanu ñu dominer ko boo xoolee dara taxu ko daanu lul ak ñàkk a benn loolu am na wa anna tafarruqa wala siyama isa qaama ala da'ima qawiyya wa sahiha wa anna tafarruqa donfun wal xitaat ak teqali ko ak doyadi la ak feebar la ak jëm suuf la wa annahu ma usibat ummatun min al umam bi shay'in axtara min al ixtilaafi wal xisaami rëy nee na amul benn xeet boo xam ni am na lu gën a daase lu ko jot ci ak teqali ko ak séddale ko xalaat léegi sax ba séddale ko ci xalaat bokkuñ ay doxalin ak benn amu fa bu boobaa ñun ñëpp dañuy mujj dem ci suuf dañuy daam bu ko defee nag kon benn boobu mënta am lu dul boo dem alaakaar yi nga xam ne mooy liggéey ci wàllu ak dugante yëpp dañuy fexe ba jël ko sànni ba génne ko bu ko defee dañoo war a dox rek ci kaw ndax bu ko defee jullit nag dafa diggante man boppam mooy mu jàpp ko dëgëral ko lépp loo xam mooy tax am texe bu dox ci loolee Sëriñ Tuubaa daa wax ni fa laa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa bu leen noonu koo xam ne laa ilaha illa allahu ci gémmiñam boo ko defee ñàkk a benn saa boo lan lay ak yàqante kenn ku nekk day jéem a yàqal boromam moo tax koo xam nit ki dama am dafay añaane ndax dafay sol dàllam fépp fu mën a dugg maa man léegi ba na ta moom bu ko defee ak noonu la xam dafay jur geneen noonu ndax nit ki boo ko ko bëggaloo ko lu baax nga gis mu koo xam ni njariñ képp ko jural da ngay jéem a ci diggante bi fexe ba teqal yooyu ñoom ñaar boo ko bu waaye am na yoo xam ne itam boo amee ba tey dafay jur ak noonu waaye mooy wuute gi xam ne koy wuutee ci wàllu waaso masalan dem nañ ba àgg ci dañ naa géer ba du moom du moom géwél bi géwél bi du moom ràpp bi ràpp bi du moom ñeeñe bi bu ko defee kenn ku nekk ab jullit la yéen bokk dëkkuwaay yéen bokk mel ni réew bokk di ay jullit waaye tey jii boo doxoon ba bëgg a ba bëgg a dagganal diggante bi say mbokk ñu taxaw te mu ne la du mel ni dëdul ab jullit nga xam ne wuute waaso yooyu boo xoolee ba indi ak ñàkk benn moom ak lan wuute ci wàllu wërsëg indi na fi moom itam teqali ko bu dul jeex man ci Maalik bokk kii ci géem Ahmad Hanbal la bokk man xam man sant naa gëm sabdu mooy jëlee di wàcc say loxo am koo xam ne moom xabdu la xam ne yow léegi léegi kii xabdu bi muy def ak yow sabdu bi ngay def rek léegi jëm ko ko def ko parenthèse boo xam dafa dox seen diggante mel ni bàyyi na sa diggante moom ba bëri leen seen dara tamani loolu maanaam farama képp la bànqaas la nit ñi da ngay dem ba da li ne moom di wax mooy loo xam ne problème bi ci diggante ji ñu xam ni ko dégagé waaye da ngay fekk loo xam ne amul benn amul benn njëriñ bi nekk ci di ci rayante di ci waxante di ci reytaan loo xam daanaka xawatu koo jar diggante xabdu ak sadlu lan moo ci jar di warante boo xabdoo du dee sëg bi di wér boo sadloo du dee sëg bi di wér lu ci indi werante yu bari ba àgg sax ci ab reyante ci bu ko defee loolu bokk na ci li nga xam dafa indi jafe-jafe ba tey dëgg ñi ci ngirum Malick ndax ay nit bu fekkee bokk nañ am ngir dana tax seetu wuute xëy na dëgg la néew du bari Serigne Touba tënk yi ci juróom mazhab Maalik waaye taxul nag ni ña ca des daf leen a dayalal wala boog doyloo seenu jàngale waaye ñoom ñëpp la doyloo seenu jàngale ñoom ñëpp itam la daa roy ndax ne woon na a'immati fi fiqhi Maalikul ali wa Shaafi'i wal Hanbali wala boog wa Shaafi'i wal Hanafi wal Hanbali nee na samay njiit nga xam ne sama royukaay mooy ñeent ñi Abu Hanifa ak Ahmad Hanbal ak al imaam Shaafi'i nga xam ne yooyu yëpp di leen def delluwaay bu dee noonu la demee nag kon lan moo tax kenn nekk ci ngirum ma kenn nekk ci ngirum saayfan yi wala mu nekk nga xam ne lan nga di doy ma kon boo xoolee loolu ba tey dafa mel ni ñàkk ci xam-xamale lay delluwaat kon bu defee loolu war nañoo fexe ba yooyu yëpp ñu jeexal ko ci diggante bi bu ko defee loolu bokk na ñu jël am teqale ko wuute ba ngir ba ci sax wuute taliba nga xam ne yow ginnaaw murid nga jàpp nga ni kii ak tijaan rek moom léegi nekk di nekk tijaan baaraas na ko dox sama diggante moom war a jël seen dara te Sëriñ Tuubaa ba mu lay jàngal fa laa tawaadoo man ay dum faaw la waxoon yox li laa ilaaha illallaah nit que bu xasee ba di ab jullit rek boobaa jàppale sa bopp wala amatul benn baaraas bu war a dox seen diggante bu ko defee kon sabab yi nga xam ne mën naa dox diggante nit ki ak benn moo du am bokk na ci yooyu rambaaj rambaaj mooy nga solu dàllam ba gudd benn diggante bu neex diggante bu neex rek dana fexe dox ci diggante booba dara loolu jaam aman namimatu ladaa man baxata fa naqluka alxadisa amman xadasa bi jihati lisaani wa hiya aqbaru min ribatin ka masyo wa sarahu sëriñ bi da koo ŋàññi fadlan li nga xam ne da koy yàq te am nga ko waxuma dara waaye li nga xam ne da koy waral ci doomu aadama ci am gën a neex na bàyyi ko nee na mooy ki nga xam ne dafa jël waxtaanu jàmbur taxal ko ngir lan ngir mën a yàq bu ñëwee ci ci yow lan lay wax ba bokk ak boo demee ci sa xarit ba lan koy wax boo ko defee bokkal nag rëbb bu bu kawee kawee lan la ci kawam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ni min charri naasi dul wajhayn yati haza bi wajhin yati haulaai bi wajhin wa haulaai bi wajhin wa man kaana daa lisaanayni fi dunya fa inna allaha taala yaj'alu lahu yawma alqiyamati lisaanayni min annaar nee na ki yées ci nit ñi mooy diggante borom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

ñenn ci ñeen bu ñuy ree ak di mokki ak di reetaan yi ca des ndax xëy na ngay reetaan koo xam ne moo la gën mm. jigéen yi itam naka noonu la ne bu génn jigéen di reetaan moroomu jigéen ndax xëy na moo ko gën mm. moo wax ni itam bu leen di ay bëreet ci seen biir boo xoolee alxuraan dafa indi ay laay yu bari te laay yooyu nga ko tere benn bu ci nekk dafa mën a ñagas la diggante moo tax mu tere ko wala tanmiso anfusakum wala tanabaso bil alqaab dem ba wala yaxtab ba'dukum ba'dan yooyu yëpp dala ko tere ngir naan saa boo amee sa diggante ngir koy mën a ñagasal moo tax ma ne kon bu dee da ngay yëgalante di ñaawante seen biir kon nit ke dëgg nga koy sàllaw ñu koy woowee tur bu baax ñu ko wut beneen tur boo xam ne xëy sax mën naa tegtale tur gàccoor wala loo xam ne tur bi koy tuddee kon da nga ñenn ci bëri di defee loolu baaxut bu ko defee nit ki buñ ko xasee tuddee tur bu baax muy tur aw nit na ko sàmm loola tax sariya sax dafa ŋàññee ki waxuma daal moom ci yëngu boppam bu fekkee moo ko soppi kon loolu dafa mën a jël ak teqali ko moo tax alxuraan di ko tere boo mën a jëlee yàq ak diggante yi tam ñu ñu tuddee soobu sonn te mooy ñaw jot ndeke saa boo xasee ba ñaw jot ci moom bu boobaa dana tax sa diggante moom jotuma dara tax wala tax ñu lay tere ñu lay tere tajasus tajasus mooy lan mooy dëkk nga ñaw ngoot jot ci moom tax ngay naan mu daal bi lu ñu tëj fan lay dugg fan lay génn maanaam bëgg lu ñu tëj ay mbiram bëgg caa xam dara loolu saa amee rek fii amoo ci la wóor day tax nga si gëstoo ci ay mbiram te nit ki boo ko wóorooti ko dana tax nga ñàkk confiance ci moom te boo ñàkkee confiance ci moom seen du mën du mën a nekk te itam boo baax seen jàppale du nga gis nga gis islam dafa ñëw di bu dee tëjee suuf si itam dañu koy jàngal Seydina Omar ibn Khattab jàngal nañu ko moom itam tax dañu ko jéem a sa jàmm jëm jéem sa jàmm ndax jaa daa ma sette ko ci kawam ci wàll boobu muy daja suus danaa def ko guddi masalla jot muy génn di wër mbedd di Madina yi am na kër guñ ko daa wax nag naa ko ñu fa nekk te wóolu mun leen xëy na am na daal ñuy jëfandikoo Seydina Omar bàyyi ba guddi moo daal di yoxos daal di dugg ci kër ga dem ba di ba ñaax ci néeg bañ nekk fekk ñu ragal seen bitéel sàngara ma ne ah dëgg lii ngeen fi nekkee dal leen nag wax leen wax ji ñagas a ñagas ba di suba da ngeen ñëw ci bañ bi suba bu ma fa ñuy àttee boo ko defee ñu teg daal di seen kaw benn waaye dañ koy jëm daal ne ko balaay loolu yow itam wax dëgg sa yow jëm na la nag ah def nga war a defee ma ne ko lan la ma ne ko bi ngay dugg ci kër gi te néegu la maanaam teeloo ci bunt bi da nga tëb biir bi te alxuraan nee na woon waa tudd yoo tamit ab waa bi nga bu ngeen dugg ci barab na ngeen ko jaaree ci bunt ba yow jaaree ci bunt bi da nga tëb ne ko ñaareel bi bi ngay dugg yëg nga woon da ngaa jékki-jékki ñu ba ñaax yëg si te alxuraan nee na laa tadxulu buyuutan xayra buyuutikum hattaa tastanisu ba ngeen dugg ci nekk jàmbur na ngeen yéen nuyoo bal yaakaar ne ngeen doog a yées te ñu nuyoo bi ci topp mooy alxuraan dafa waxoon ne wala daje sa suuf bu dee ne làmbut ak di gëstu maanaam li ñu tamit di jàmbur te yow da ngaa nit ñi loo xam ne ñuy def nii ba waxee loolu moo xam ne seen làmbut ko ba gën dëgg la moo xam ne sa yaxa jam na ko tax ma daal d'accord daal ne ko wax nga dëgg waaye li ngeen def ko defati kon nga gisee lislaam dafa teg ay yoon yoo xam ne day bëgg nit ñi jaay te buñ ci mooy tax taqaatoo wala tadabur wala nga xam ne dafay jël ak teetal wala suñu diggante bu ko defee bokk na ci yooyu nga xam ne wax lu dëgg dañuy wax ne ko mën a laal moo rafet mooy wax dëgg as-sidqu fil hadiis waaye waxtu boo xamee ne yaa ngi ànd nit wala ngay jaxasoo moom te lépp ay fen ko bu boobaa du yàgg dafay jël nañ ci ko ñu wax Safwaan ibnu Sali ne dañoo laaj Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ne ko waaw ay yakunu mu ne ko waaw ay yakunu l-mu'minu baxiilan ndax ab jigéen dana nay ne ko waaw ay yakunu l-mu'minu kazzaaban dana fen mu ne ko déedéet ne man boo xoolee gën dafa mel ni que fen moo ci gën a yées ba bi ñu wax léegi saa bu duggee ay fen daa nekk ci biir tax mën a yàq ab diggante ndax li bëgg a yàq sa diggante keneen tax mu muy waxal diw di la sosal di ko sosal di wax loo xam dara amu ci bu ko defee nag niñ ko waxee fenn saa bu lalee ab diggante rek wala saa bu fondement ak tabax moom tabax bu du yàgg moo xam ak xaritoo la moo xam ak ànd la moo xam ak jàppalante la bu ko defee loo xam ne nag day tax ak diggante di mën a yàqu loolu islam da koy dégagé te fenn daje bokk bokk na ci itam xeet ndax nit ki saa boo ko xeebee mu xeeb la te am xeebal na saa boo demee ba tax diggante yaa am ba tey yéen seen diggante du war a tax wala neex war a tax day fekk Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu di ko tere wa min ihaanatin aw intihaari li muslimin aw sabbihi bi amaali nee na bul doy dal kenn wala nga koy gëdd wala nga koy gàññ wala nga koy gàcc ndax loolu boo ko def rek seen diggante du war a neex bu ko defee loolu yàlla ci boppam mi ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla lépp lu mu wax yonent bi mu nekk ci alquran boo leen jullit yëpp dañuy dugg ci biir ndax ab ndigal la ndigal la loo xam ni yàlla moo ko dénkaane bëgg ñëpp jaar ci te ba muy dénk yonent bi dane ko woon waxfid janaahaka leen waxfid janaahaka liman ittabaaka minal mu'miniin ne ko ñi nga xam ne ñoo la topp di ay jullit da nga wàcce sa bopp ci ñoom da nga woyof toy ne ko boo yëf boobu nekk ko neex a jaxasool mooy tax ñi nga àndal ñu mën daa topp mën da jaww ji tam ginnaaw yonent bi yi digal loolu kenn ku mën a doon ak darajaam lu màgg màgg rawatina bu dee ku tekki ba dara nag wax dëgg ba nga xëy mbokkum jullitam wala bu bëgg a diis ñu ko war a rëy loolu bokk na ci nga xam lislaam da ko éviter da ko bañ lool da ko ŋàññi itam bokk na ci yooyu itam xool xool kenn bëtu maa la gën nit ki saa boo ko xoolee maa la gën wala maa la féete kaw rek boo boobaa léegi jël nga ab balance doxale bi yéen a ànd wala seen ànd du mën a neex te Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ni waxuma la de nit doomu aadama ni yow waxuma la ak xaj tepp boo ko xoolee ba seet bi ko jàpp ne yaa xaj ba gën ab xaj tepp bu fekkee na nga jàpp ne yaa ko gën xaj ba moo la gën wa kullu man yanzuru fawqa al-kilaab fal-kalbu xayrun falasta afdala aqli min ahadi li jahli ma tasiru fihi fii wari nee na képp koo xam ne mi nga xool am xaj ba jàpp ne boo ko féete kaw xaj baa ko gën te képp kuy jàpp ne da ngaa gën kenn itam na ngaa réere fa ngay ci suuf la bindee ci lañ bindee aadama mi sama am te itam ëllëg ci suuf ngay delluwaat raab ko ko jeex tàkk loolu nag képp koo koy xalaat da nga xam ne kon doo lenn ndax nit ki fa mu jógee dafa doyadi fa muy mujj itam dafa doyadi bu ko defee loolu ba tey day dox diggante nit ba du mën a jubóo boo ko bind tamit. bi ñu topp mooy li ñuy tuddee alfasasatu wal xisa ak ñagas wala naqari dale saa boo nekkee ci dëkk ba tey itam du mën a jaxasoo kenn. nit ki daa war a oyof nekk ko neex dale mën a jaxasoo ñëpp ñëpp sa war a nekk ak moom waaye koo xam daal naqari dale gaaw a mer gaaw a attaqué kooku kenn du mën a nekk ak moom te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla digal loolu la ko suñu borom digal fa bi maa rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalbi lanfaddu min hawlik di ko yërmande ji bàyyi ko ci yàlla moo la jàppale ba tax nga jëflante ak nooy sa diggante ak ñoom waaye boo nekkoon ko naqarta rek ko gaaw a mer ñii la toppal nga xëy xëy ñoom ñëpp dellu seen kër mbokk koo gis mu kër mbokk la kër mbokk la ko bu fekkee da ngay jëflante moom am ñagas ak naqarta rek ba xëy xëy dem ci mbokkam ne ko kon loolu nag da ko nooy goon nooy sa diggante ak am yërmande bu ko defee loolu am des nit ku nekk war ko jéggi nga xam ne daa war nooy daa war a oyof ba tax diggante ba mu jéggi rafet kon nit ki ko mën a ko naqari dara du mën a nekk ko defee da caa bokk itam lu ñu tuddee al mubaadaratu bi suuf nit ko ne xaw naa doy waar ci sa côté bul dikkantoo diw nee na la nangam wala def na la wala diw def na la nangam rek nga daan koy attaqué dal ci kawam da ngay def da ngay def ba nga benn kii bu métti métti fekk la ca loolu tax alquran waxoon ne yaa ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tasbihu ala ma fa'altum nadimin yéen ñi gëm yàlla bu fekkee nit dafa ñëw jox leen ab xabaar bu leen jékki-jékki dal tey sukkandiku rek def ko li ngeen wax waaye li ngay njëkkale mooy li ñu tuddee ak waaye na nga def ndànk luñ bitu mbir yi gëstu ko ba xam ni demee ko defee bu la leeree nag da nga xam nañ koy doxee an nii dafa baax ci lépp atta an nii te mooy nga teey wala danaa boo nee tekk-tekk war na aw yoon kon bu mbir ci yow rek nga daal di waaye na nga def ndànk looloo tax ñu bëgg boo melee sax pour wax ko da nga jëf ndax am na ñoo xam ne buñ melee dañuy xabar xabar def loo xam ba demee ba giif dañu doog a xam ne def nañ musiba wala wax nañ musiba loolu tax ñu bëgg nit ki bu melee dafay dal yonente bi alayhi salaam loolu wax ne laysa laysa sadiidu bi sirama innama sadiidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab dañu jàmbaar am doole nekkul ci nekkul ci doole nii kese nga xam ne buñ la booleel rek nga dal koy daaneel mel nañ la ko jàmbaar mooy lan mu ne mooy ñi nga xam ne bu melee day mën a maîtriser boppam ko du wax wala du jëf kon loola tax bu fekkee nit ki daa def dara bu njëkkantoo bu fekkee ne daa indil xabaar yi tam mooy information boo xamante ni bu njëkkantoo waaye lépp mën na ko seetantal ba xam ne koy doxee bu ko defee yooyu yëpp nag gis naa li tax mu koy ñàkk rek mooy ngir bëgg rek diggante yi rafet bëggul benn diggante bu yàqu ndax nit bu fekkee ne daa wax ci moom dara bu jóg engagé ko te xëy na sax defu ko boo boobaa da nga koy wax wax ko wax ji ñëw ba ak jotee dox ci seen diggante loolu dana indi baras bu dox seen diggante seen diggante dootu mën a neex seenu ànd dootu mën a teg ko boo ko defee loolu nag lay éviter loolu lay tere bokk na ci ba tey yi mën a indi ab ab dogante wala ak mooy xotti sutura sutura am sa boo ko defee loolu ba tey mat a bàyyi xel lool ñuy sutura yi nit ndax nit ki yàlla ci boppam moo ko suturaal te yonent bi dañu woon man satara musliman fi dunya satarahu llahu képp koo xam sa mbokkum jullit def nga lu ñaaw ci àddina nga suturaal ko fexe ba siiwuloo ko waxoo ko ëllëg suñu borom dana la suturaal ci àllaaxira ko ñu bëgg na yàlla ko kon bu ko defee xotti sutura boo ko defee yàq ak diggante suñ Tuubaa la waxoon laa taltabis min uyuubi naasi maa sataru fa yahtika llaahu sitran an masaawiika mooy loo xam ne dafa iqtibaas ci beneen waykat wax ne rek waaye bul sàkk ko li nga xam ne nit ñi dañ nit ñi dañ koo suturaal moo di ay ayib ndax boo xottee sutura si jàmbur suñu borom dana xotti sa sutura te Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu daa wax ni nit ku nekk ayib bi boppam war na koo doy sëkk ba du gëstu ayib bi jàmbur te bu seetee boppam ba xam ne amul sikk itam te muy lu jafe te muy lu jafe nag nit ki bu seetee boppam ba xam ne amul sikk te muy lu jafe nee na dox digganteem ak luy tax du am sikk war na koo doy sëkk ab liggéey ba du soxla wati luñ ñu te ay bi jàppoon ak di ko siiwal kon loolu ba tey rek moo tax bàyyi xel bu ko defee léegi bu ñu waxee yi nga xam ne mën naa yàq ak diggante nag léegi ci yenn li ñu sukkandiku rek moo mën a def ak diggante yi ba tax ak diggante mën a baax mbokk la ci li ñu tuddee as-suura te mooy diisoo di diisoo di waxtaan nit buñ amee lu ñu bokk dañ cee diisoo di waxtaan wala day faral di wax naa ak réeroo amul ñàkk waxtaan moo am kon li fi waxtaan bi nga am rek day tax ak juboo gën a am ak bennoo gën a am jàppalante gën a a am ko a baax si Abdul wax ni ay nit bu amee lu ñu bokk war nañ léeg-léeg ñu bëri dugg ko doonte waxuñ dara ñu nekk fa ak diir gay nant ndax loolu ba amee rambaaj yi nekk ci biir ba yàq seen biir buñ ko gisee dana ni ñi kat ñu ànd nañ waxtaan nañ ko dugg ci seen biir yaa kon bu ko defee di waxtaan la am solo la tey itam nag alxuraan dajee soññee digle ko daa waxoon yonte bi alayhi salaatu wasalaam ni ko wa fil amr sa saxaaba yi na ngay dajeeg ñoom di diisoog ñoom ci biir mooy bëri wu te bu ne xam na ni yonte bi moo gën a mat moo gën a mat ñëpp tey itam alxuraan ci boppam moo ko kon ba naa kon am jàngale la. loolu tax yonente bi alayhi salaam daa dajeeg ñoom lu bare bari di waxtaan ñoom bu masaan di waaj ay xale yu ko defee diisoo yi nag dafa am yeneen lu def la ab conseil ni la loo xam ci nangam ak nangam jox ma ci xalaat wala sa xel soxla na ko ci kooku dana tax nga xam ne kon boole na la ci boppam maanaam considéré na la te nit ki nag waxtu boo xamee ne jënd la boole ci boppam ba doyloo sa xalaat di la ko laajee kon dana tax nga xam ne maanaam kii kat maanaam amul benn parenthèse boo xam da koo da koo da koo doxalee si diggante ak yow ndax nit ki boo ko xeebee doo doyloo xalaatam koy gisoo moom kon nag nit ki sax boo doyloo xalaatam koy gisoo moom boobu li muy wane mooy kon doy ma sama xarit la bu ko defee loolu boole nit ci sa bopp la bu ko defee loolu ba tey alxuraan dañuy alxuraan dafa tagg ñi nga xam dafay diis dañuy diisoo ci seeni biir di fekk yàlla subhaanahu wa taala di wax ni wallazina stajaabu li rabbihim wa aqaamu salaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun nee na ñi nga xam ne ñoo nite aljanna ñoom la suñu borom fonk mooy ñi nga xam ne ñuy wuyu suñu borom saa bu leen woowee mooy ñi nga xam ne ñuy taxawul julli di diisoo ci seen biir day joxe asaka waaye foofu li tax mu yéeme xam na ne alxuraan ñaare fu mu tuddee iqaamatu salaat daje teg itaaw zaka wala boog al infaq waaye fii nag alxuraan dafa indi julli ba noppi daal ciy teg diisoo daal di doog a indi la nga xam ne ñaare moom la daa teg ci julli ndax na ni wa aqaamu salaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mooy ñi xam ne dañuy taxawal julli dañuy diisoo ci seen i mbir naka la ñuy tax dañuy dépassé ci biir suñu borom jox. boo xoolee bépp diggante bu jag rek bokk na ci la ko mën a jagal kon xam ne mbooloo ñoo ko bokk loolu tax gis nga Seydina Omar ibn Xattaab radiyallaahu taala anhu bi mu fiy bëgg a jógee te biirum jullit ñi dafa diis yeneen it ba mu fa jógee am na ku mu wootaloon koo xam ne moo war a jiite jullit ñi muy Aboubacar ba mu fi jógee Omar topp ci waaye Omar xam ne bu fi jógee jullit ñi commencé topp ci ginnaaw kenn dafa xaw a diis te naa indi ay jafe-jafe wala ay wuute looloo tax ma samp benn commission bu ñuy tuddee rijaalu shura rijaalu shura mooy ñoo xam dañuy diisoo waxtaan ba gis koo xam ne xam nañ ni ko ko kon diisoo dafa baax ci lépp looloo ni saa wir si diisoo ña nga xam ni ñoo ko ca war diisoon dana tax mbir ma gën a rafet fal ayna tansuru minha ma dana wanaa wala tara nafsaha illa bi miraati ndax gis nga nee na bët ka mi nii bët mën naa xool fu nekk mën naa xoolal bu nekk ay mbiram mën naa gisal bu nekk waaye nag balaa gis boppam faaw dafay diisoo ñàkk seetu kon loolu tax nit ki mënta gis biir boppam waaye sa biir boppam nag kiy waxtaan keneen mooy tax mu mën na cee junj yoon boo xam ne ci jaaree mu bokk ci yooyu nga xam ne mën naa jégal diggante ba tey li ñuy tuddee islaamu zaati bay war naa koo xam ne sax bu gisee diggante bu naqari war naa sot aw dàllam fexe kenn ku nekk mu dem fa waxtaan ak moom ngir fexe ba ak juboo amat te alxuraan itam tàggee na ñi nga xam ne ñooy def loolu fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum la suñu doon wax ci suratul anfaal nee na da ngeen ragal yàlla te lépp loo xam ne mooy tax seen diggante rafet na ngeen ciy ndax dafay demoon ba tey parce que bay na xawee ko jullit ñi ay mbokk lañ te nag ak mbokk ba amee dañoo war a tax ci loo xam ne mooy yéwénal mbokk ga mooy tax bu gën a rafet mooy tax ànd bu gën a neex bu ko defee loolu tax yàlla wax ne kon na ngeen ragal yàlla te yéwénal seen i diggante ba fexe lépp di rafet. wax ba tey ne laa xayra fi kasiirin min najwaahum illaa man amara bi sadaqatin aw ma'ruufin aw islaahin bayna an-naas wa man yaf'al zaalika ibtighaa'a mardaati llaahi fa sawfa nuutiihi ajran aziiman nee di gisee di waxtaan amul benn njëriñ di gisee di waxtaan kaay la gis la amul benn njëriñ lu dul koo xam ne xanaa dafay gis ak di la digal di la digal lu baax wala saraxe wala jëf njëkk wala boog mu lay digal ngay defar diggante ñaar ñoo xam ne dañoo juyoo yàlla wax ne képp koo xam def na loolu te sàkku ngërëmul yàlla képp ko dox tax koo jóg ñun ñoo koy fayal suñu bopp fay bu mag. boo xoolee itam diggante ñaari ñoo xam dañoo jubóote boo nga fexe ba dox ci diggante ba ñu jubóo seen diggante neex loolu boo xoolee am na ay ngëneel yu bari bari yu ci nekk yoo xam ne rot na fi l ahadis nabawiya ci benn hadis boo xam ne abu darda da koy nettali di wax ne yonent bi salaatu wasalaam mas naa toog ba yegg mu ñu waaw ala uxbirukum bi afdali bi afdala min darajati siyaami a toog ba yàgg mun leen li muy yëkkati yëkkatiku ay daraja ji moo ko gën loo ko xàkkee ah, buñ ko amee jëndee mu ne ba ñaari ñu jiw yow nga dox ñoo xam ne dañoo dogante nga fexe ba diggante ba. islaamu saati ba illa isaa taqaataw kon teyaabu yi mag a mag am na ci yoo xam ne nit ki koy def mën na cee jële loo xam ne xëy na mënu jële ci koor mënu jële ci julli ndax lislaam dafa boole diggante ñaar mooy li ñu tuddee ak muamalaat ibaadaat yi mooy jaamu yàlla li dox sa digganteeg yàlla kooku sa digganteeg yàlla la leneen li ñuy nag mooy li dox sa digganteeg nit ñi nga war koo rafetal bu ko defee loolu nag tax mu ndax koo xam ne mi ngi jaamu yàlla la ko suñu borom sant diggante moom moom lépp mu koy def te taxul mu rafetal diggante ba mbindeef yi loolu du tax mu mucc am ko mës a ñëw ci yonent bi wala ñu ñëwoon ci moom ay bëccëgam da koy woor taxaw mu ne leen lu mu def ak ay ay dëkkaaneem ñu ko bant bu gudd lañ koy laale de bant bu gudd lañ koy laale ndax ne xàtt la ko xam ne rek mu ne leen xiye fi naar tu sawar la kon jaamu yàlla nga jëriñu ko tax jëriñu ko mooy dafa rafetul diggante ba mbindéef yi kon nag sa diggante gil bi lépp luy tax mu rafet dañ ko war a def lépp ak meroo wala ak dogante wala ak wan wala ak wanante ginnaaw loolu da ngaa war a sa diggante moom boo ko defee bokk na nit ki nga koy suturaal maanaam koo suturaal awraam dana tax itam seen diggante du ma sa ndax nit ki sax boo ko xamee ne ay wuññil ko ko rek boo toll ci a indi ak doggante sa diggante bihi awrata mri'in fa indaka awratun wa linnaasi alsunu wa in absarat aynaka ayban fa qul laha fala tabsuri yaa ayn linnaasi ayun tere nga bañ te xotti sutura si bu fekkee ne nga dox sax ba bi jàmbur na nga yegg di ko yow sa sama bët bii boo xool kat ayib bi jàmbur ndax ñi nga ndax ñi nga xoolee ayib bi jàmbur jëmmi ki nga amee lan la amee ay ayib te itam ni nga amee bët la ko doon da jàmbur amee ay bët kon boo xoolee ayib bi jàmbur gis ko wax ko ab jàmbur itam xool sa ayib bi xool sa ayib gis ko wax ko donc bu ko defee loolu lay demee nag kon bu ko defee boo xoolee ci day rafetal ak diggante nag nga fexe ba nit ñi koy di sutura maanaam di bañ a xool sutura Seexul Xadim radiyallaahu taala ni ma ko waxee léegi daa waxoon ne képp koo xam ne képp koo xam ne mi nga xool ayib bi nit ak di ko luñ witu daa desee xam ayib bi boppam waaye li jënd si ayib bi bopp war na laa doy sëkk soxla ba doomu jëndi sikki jàmbur bu ko defee bokk na ci yooyu ba tey itam axsu inna wa innama Sëriñ Tuubaa daa jàngale yoo xam ne bu ci jàppee dana tax ak noonu dox suñu diggante moo daa wax ne ngeen jàpp ci inna ak innama inna ji mi ngi ciy junj ne alquran bi wax naa inna seytaane lakum aduwwun fattaxisuuhu aduwwan nee na seytaane am noonu la rikk waaye da ngeen ko jàppee am noonu bu ko defee am noonu nag du bëgg benn diggante bu rafet kon diggante bu am sa diggante nit ba yàgg ma ñëgas na nga jàppale seytaane moo ko dox am na ñoo xam ne bokk seytaane lañ mooy képp koo xam dafay jóg di wër di rambaaje di jaxase ay diggante kooku bokk seytaane la bu ko defee nag bépp diggante bu jaxasoo na nga jàpp ne xëy na seytaane moo fa jaar rek bu ko defee nga jàpp ci innamaa gi nag mooy innamaa mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jigéen ñi ay bokk lañ bu ko defee nag luy tam luy tam bu rafet luy tam bu sell kooku da ngeen ko sàmm bu baax a baax kon lépp la rafet sa diggante jullit ba nga jëm ko dox waaye lépp lu ñaaw itam nga jàpp ne seytaane moo fa noonu bu koy doxee jàpp naa ne moom kenn du ñu nga sumb loolu bu ko defee lu war a bàyyi xel bu ko dafa bokk ci nga xam ne sëriñ bi dañu ko dañu ko daa jàngal te dégg ko di delluwaat ci njàngum sariya ba tey mooy ak nemmikonte li ñu tuddee ak tasawur ci rafetal ak diggante mooy sa jëkkër day nemmikonte moom di seetante moom di bañ a bumbante ak bumbante saa yuy am ci diggante ak réeroo mën naa am waaye yoo xam ne danañ fexe ba bumbante du am ñuy daje di waxtaan te daje di laa misoo di diisoo kooku dana tax ba seenu diggante dañuy gas moom rawatina jamono ji sax nga xam ne kooku ci diggante donte kooku yi di seen donte ak yi seen ji tam ko xam ne ab diggante moom jafetut diggante jafetut téléphone yaa ngi fa bala ma sooy ñëw ko ci anam bu nekk internet baa ngi fi kenn ko nekk nga xamante daje moom di waxtaan ak moom bu ko defee loolu ba tey yooyu yëpp bu yi xew ci jamono yoo xam rek ba tey nit ki mën na ko jëfandikoo ngir mën a dara diggante ma ay bokkam bu ko defee boo ko ci dégg rek nga jokkoo moom daal di waxtaan moom bu ko defee di waxante nag di nembe ko noonu di diisoo di waxtaan bokk na ci li xam ne ba tey dana dox diggante ñaari nit ba du ñu dogante wala ñuy bennoo wala ñuy meroo wala boog ñuy wanante ginnaaw bokk na ci ba tey itam di ndokkeelante ak itam di maye léeg-léeg gis ko xam ne aajo woon na nga yëkkati dara may ko jox ko waaw ab joxante ba tey dafa mel ni que bokk na ci rafetal diggante na ngeen di mayante kenn ku nekk di may moroom loo xam ne da ko jël loolu bu ngeen ko defee da ngeen bëggante waaye itam di nuyoo kenn ku nekk di ndokkeel moroomam bu ko defee boo amee xewu jàmm nga dem ndokkeel ko ci boo amee xewu musiba nga dem defal ko ko defee ni ngay nekkee moom di ko nemmi ko xam ay mbiram loolu bokkante yi di jël ba tey seen diggante dafay gën a neex dafay gën a ratax waaye lépp luy jël ak doggante yi tam da leen sori bu ko defee da ngay gis lislaam di jàngale lu bare bare ak lu mel ne nga àtt mbokk ak yee ci aju waaye boo xoolee li muy jàngale ci ak mbokk li muy jàngale ci ak dëkkam la ngir ñu war koo rafetal lépp dafay delluwaat ci ak benn kon boo xoolee dafa mel ne objectif yi ñu sàkku ci nit ñi koy rafetal lépp boo xoolee da ngay delluwaat moo ci ak benn ndax mbokk la ca war a rafet bu ñu ko rafetalee ci ak benn bi la ñu jëmee bu ak benn amee dañuy mën di waxtaan te dañuy waxtaan. boo xoolee ay dëkkaan yi tam dañuy sàkk ñoom ñu war koo amal bu ñu ko amalee ba tey ak benn dafay jot. te ak bennoo bu amee dañuy daje di waxtaan di wala di bërante boo xoolee naka noonu dañuy sàkku ci diggante ak bu yow ñuy war koo bennoo nekk ko benn lépp boo xoolee dafay delluwaat ci bennoo kon nga xam ne boo xoolee bennoo dafay mel ni que moom mooy fondement wu lépp saa boo amee rek lépp dafay baax lépp dafay jëm société bi day jëm kanam lépp dafay avancé bu ko defee nag kon dañoo war a ànd benn ci suñuy xol àndoo ci suñuy xalaat ànd yi tam ci suñuy yéene. te ak ñàkk a bennoo échec lay waral tanaasox te indi ngëneel man boo xam dañuy ànd bennoo ci sama xol kasa xanaa te suñu yéene moo di ndam kon li tax nit ki mën a am ndam mooy bu bennoo ñi nga xam ne ñu ko war a nekkal di jàppalanteeg ñoom di dimbalanteeg ñoom bu ko defee saa bu bennoo ko ko amul nag yooyu yëpp dafay mën a yàqu bu ko defee ànd lu mën a am ak neexoo lu mën a am te loolu nag saa bu amee am yàqalante dafay am bu ko defee itam loolu li muy indi mooy am ndax-ndax ci dundu société bi comme ni nga xamee ne yonent salaam dafa daa jàngal saxaaba yi nga xam ne ñoo ñu ko génne ci université bi ñoom loolu lañ daa doxal ni ko suñu Tuubaa daa waxee naa wa kashafu junnatal afaaqi bil ilmi wal amali wal wifaaq nee na saxaaba yi di tax bi fi yonent bi jógee ñu àggale mission ba ba lislaam yi jël ko dugal ko ci wax yëpp mu àgg ci réew ba tasaaroo nee na tax ñu man ko mooy dañ koy teg ci xam-xam ak jëfe waaye ñoom ñëpp ànd takk seen bopp maanaam ànd takk bopp def ko wenn say loolu moo tax ñu réussir te nga xam dañ ko doon def kon nit ki la muy def saa yu ca àndee benn da ciy réussir waaye lépp loo xam ne yaa ngi jëm ko dox te benn amu ca boobaa doo ca mës a am ko kon lii tax ndam am mooy benn lii tax ndam am mooy jaxasoo lii tax muy am mooy dimbalante a boo ko defee kon ci ak benn noonu mbir yi mën a tegu lépp daal di jëm ci kanam lépp daal di dox ñu mbir yoo ko ñaari Serigne Touba yi doon wax naa wa taxawtu ba naa wax tawaadudi bila tanaasuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri da wax ne yàlla yàlla na nga boole suñuy xol def ko muy benn la li ñuy mën a bëggante bëggante boobu ba ci amee nag moo tax ak noonu da ciy génn ak jaxasoo da ciy génn dana tax duñu xuloo duñu wanante ginnaaw duñu foñante duñu bañante boo ko defee yàlla nga xam ni moom boole sant te buñ ko defee lépp dañuy may taxe àndaate ak laaxira kon yàlla ñu suñu borom defal bu ko defee kon mbokk yow li ñu doon fàttalante ak yéen di ñaan suñu borom gën ñoo xirtal ci ak bennoo ndax dama ne itam lépp loo xam dafay jur ak noonu suñu diggante suñu borom te itam ki yëpp ay leeram te tas ci barkeem te njaboot gi nga xam ne ñoom dafa bàyyi itam suñu borom gën leen dëgëral ci lim nekk bàyyi leen seen ne ko yéene liggéeyal ko ko taalibe yi lépp ñu te ko taalibe yi kon ñi jégalu ba baax a baax ak ci kon ñu xam ne rek nit kenn matul day fàtte pour yàlla rek mooy matal tey àtte lu baax ak yéene. yàlla na am samaadata daare ni jënd yi ba di seen loolu ñaan may gis keroog wala tajaabul wala tabaamul wala tabaamul